salaamaaleykum euh, cher collègues euh, madame le ministre de la justice garde de Sceaux monsieur le ministre euh, chargé de la bonne gouvernance monsieur le ministre du travail maa ngi leen di nuyu tey ñu ñëw pour examiner euh, le projet de loi d'amnistie un projet de loi ba nga xam ne dañu ko indil en procédure d'urgence euh, luñ ci gis Euh, lu ñu annoncé si exposé des motifs bi mooy la volonté d'apaisement la volonté de dialogue la volonté de réconciliation effectivement loo xam ne ñëpp jàpp nañu c'est quelque chose de louable maintenant nag moo ngi intervenir dans un contexte électoral ba nga xam ne ñëpp a ngi réclamer la date de l'élection moo tax soo xoolee peut-être discours yu bëre peut Euh, motivation électoraliste yi moo ci ëpp que peut-être analyse projet de loi bu ñu soumettre parce que ku nekk bëgg nga sa mbër nga présenter ko nu mu gën a jekkee donc loolu tamit euh, seetlu nañ ko ci euh, dama ne situation bi mënuñu ko waxte te rappelé wuñu en juin deux mille vingt modification code pénal ak code procédure pénale rappelé woon naa ko en commission ba nga xam ne dafa assimilé woon ay activités politiques yu bëre à des actes de terrorisme mooy contestation politique te jur na sur surpopulation carcérale jur na ay longue détention préventive projet de loi bi nag c'est un projet de loi du gouvernement gouvernement beeku indi euh, ne vraiment ils veulent prôner le pardon ils veulent prôner la réconciliation comme j'ai dit c'est quelque chose de louable ñu bëri tudd nañ ci Pastef ñu bëri tudd nañ ci président Ousmane Sonko xam ne bokkuñu ci gouvernement nous ne sommes pas demandeurs mais lu ñu indi tamit il faut ñu saytu ko examiner ko xool lan la ñu indil pour joxe ci suñu position sur la notion de victime effectivement on parle ya un bilan humain un bilan matériel qui est lourd on parle de 60 morts milliers de blessés des quarantaines d'amputés et am na ñoo xam ne sax actuellement ils sont évacués au Maroc ñun mën nañ ci wax dara parce que su fekkee ni soins médicaux hospitalisation soutien aux détenus frais d'avocat depuis 2 janvier 2023 dépensé nañ ci 240 millions ñu bëri dañuy laajte xaalisu Pastef fu mu jëm foofu la jëm 240 ah millions waaw loo xam ne si jàppale ay détenus si jàppale ay blessés ci fay ay frais d'avocat pour ces détenus là parce que su fekkee dangay wax solidarité ñu bëri tudd nañ fi détenu ñun lu ñu wax c'est une solidarité agissante parce que seetaanuñ leen également xooluñu leen di leen mbubboo naan dañu leen di politiquer wala dañ leen di utiliser comme de la chair loolu du la conception politique de Pastef du la conception politique de président Ousmane Sonko maintenant wax nañ ni tamit loi bi dina permettre ay libération détenus politiques ñoo ngi saluer les libérations qui ont été faites ça dans le bon sens am na tey actuellement 400 détenus politiques yoo xam ne mun nañu jàpp ne ñoo ngi ci kaso bi soo demee Sédhiou rek ñu mel ni Kéba saw Boubacar Sow Mamadou Lamine daabo chaque jour seen njaboot yi man en tant que député de Sédhiou ñoo ngi may woo pour xool naka nañ leen di jàppale ñooñu génn ci kaso bi mais par contre am na loo xam ne tamit il faut que mooy les victimes parce que au-delà des des détenus politiques qui sont également qu'on peut considérer comme des victimes il également des des des personnes qui ont fait l'objet loo xam ne ay homicide la on parle de 60 morts et yaakaar naa ni loolu également il faut que ñu bàyyi ko xel moo tax ñu bëggoon champ d'application loi bi euh, notamment l'article premier. Je pense que mon collègue Omar Sy a posé la question. Est-ce que le champ d'application de la loi couvre les crimes de sang c'était ça la question ñu bëggoon ministre bi indil ñu ci ay précisions parce que moom mooy ministre de la justice moom mooy garde des sceaux parce que su fekkee interprétation champ d'application loi dafa am problème tey on se réfère à l'exposé au texte bien sûr à la à l'esprit à la lettre et à l'esprit l'esprit on le retrouve dans mais on le retrouve également dans les travaux préparatoires mooy rapport ba nga xam ne moom la jëlee ci commission bi ak également ñun débat yi ñu am séance plénière te yaakaar naa ne ministre de la justice garde des Sceaux su si waxee c' est une personne autorisée au delà de la personne tey Aïssata Tall suba keneen lay doon mun na naa kaat keneen ñu xam ne loolu c' la vérité officielle la vérité institutionnelle loolu ñu bëggoon laajte ñu leeral ñu ko balaa ñuy prononcé merci. merci.